waaw ba tey euh, ñi ngi safaru Balla Gaye euh, kii nag euh, mu nekk monument Guédiawaye muy Lirou Diane borom États-Unis mu nekk koo xamante ne waaw ba tey ko moom man moom moo ko fii mooy sama réew man Sénégal. Lirou maa ngi nuyu. fay naa la Fatma Dia. naa ma mu yëgul jool. sama mag sa mag waaye léeg ngay xaw soppeeku tuuti. da yaru soo yaru rek. ma teg ko ci yoon waaye soo drapé rek ma drapé ah oui su drapé rek ma drapé. fay naa la fan ma tey ñu fekk la ci safaru Balla Gaye xam nañ ni Balla sa rakk la. loolu moom picc yi saf soo ma fekkee safaru Balla Gaye waroo ma wax loo fi wut ndax sama safar la Balla Gaye mooy moom mooy man sama rakk la sama xarit la sama lépp la sama genn wàll ku ko bañ bañ ma ku bëgg Balla Gaye bëgg ma sama rakk la c'est mon ami sama frère ça l'aime beaucoup way ñoom ñu gis daaw safar bi daaw defoon ngeen ko si anam bu nga xamante ni anam bu rafet la mhm. ren ñu gis di feebar bi am na muy coronavirus mu gën a yokk est-ce mu gën a yokk safar bi gën a yokk nag yi yokku na ceeb yi yokku na diwlin gi yokku na boisson yokku lépp a yokk yoonu Serigne Touba amul tànk ginnaaw tànk kanam la am. mais naa joxe woo booy gis nga ba xamal la benn ay joxe woo dara yooyu yëpp bu ma ko laaj da ngay dem ci ndeyu mbili gi nga laaj ko booy bu ma laajaat ay joxe woo lu sa yoon ci loolu su may joxe su ma joxewul sax yow. waa damay la lu sa yoon ci loolu yow war nga maa laaj loolu yow. naan ma soo joxe soo joxe lu sa yoon loo xam ci joxe naa wala joxewu ma. waa damay laaj. bu ma laajee trop Lamine man. mun ma wax ndox yi Lamine nag boobu mu ndaw boobu. Eh, Lirou euh, safar gi ñu gis wax dëgg yàlla dañ cee saf sàpp jóge nga États-Unis waaw dañ cee saf ndax gis nañu jóge nga États-Unis nga ñëw macha allah liiru liiru nga am nga am sa riir mi gën a yokk kaar macha allah nga am ñun ay taalibe la ñun ay taalibe ñun dara jommuñu ñun taalibe dañoo jaar fu metti dañoo ànd ak ay nit yàlla jël leen yàlla dimbali ñu ci defal lu yàlla lu tax mu bàyyi ñu fi joobi defal lu yàlla lu tax mu yóbbu ku ci mel ni Mama Ba père Alioune Seye père Gora Seck Cheikh Mbeng Cheikh Sëy yàlla na leen yaara xaare àjjana. tey ci accident bi nga bokkoon. ah man ma maa bokkoon benn baa mun tooba leen ñaanal rek ndax foofu suma ma fa duggee damay xaw a kii waaw nan bàyyi fa mu set nan wax ci safar gi yàlla na yàlla xaar àjjana. liiru nga jógee États-Unis même pas yàggul ñu sàcc la ñu bari na sàcc gi da nga koo wax pour prétexte parce que da nga indaale wul woon dara pour bëgg gaa yi gën see jàpp pour sàcc gi mën nga koo leeralaat. Euh, ma xamal la benn affaire ma indi dara ma ñàkk indi dara concerné wul leen concerné wul leen man su ma demee Amérique lan moo ma yóbbu Amérique entraînement moo fa yóbboon. man liggéey yóbbuwu ma fa moo fa yóbboon dem naa saali tëj am naa fa sama nit yu baax ñu defal may teraanga bu bari ba may ñëw ku ci mel ni kan euh, sama rakk ja Afia la Afia Mor Ndiaye ñoom ma faal ah directeur moo Ndiaye moo Ndiaye séeri mat len comprendre ñu defal ma ay teraanga. ak sama papa ja père Babou mi ma dalaloon këram papaay Balla Gaye 2 ak kan mère Assou Faye ak mu géet borom la Vegas ki ma jëlal portable bi ñu defal ma ay tranga ak coxo euh, consulat ba xam nga bi nekk Amérique ki xam moo fa nekkal Macky sal bëggal ma boppam barke Sëriñ Fallu Mbàkke defal may tranga Penda Gissé Margot ah ñoom asula euh, jigéenu sàngara ma ñu defal ma ay tranga yu bëree bëri sama rakk yi man Amérique tubaarikàlla macha allah bi may ñëw sama ginnaaw bandang dem na Amérique jëlee naa oto boo xam ne tubaarikàlla bu bakkane ak nen xaw xoolal bu la ma waxum wuy sama waruma ko war a wax ndax li ma dañ ma tàng li ma wax la non non ma wax la rek nga ne man lii oto oto daf maa jom man bi ma amee oto du fay bu ma amee oto du fay li ma wax moo tax ma wax la loolu man gis na man ma xamal benn Amérique entraînement moo fo yóbboon ma dem penn gisee da nekk si conseil ba yóbbu ma saal fayal ma inscrire ma may entraîner ñu dem ma commencé entraîner cinq jours saal yi tëj ndax corona bi man xam nga man def lu baax rek a ma war tubaarkàlla ma saal sama ginnaaw ban nag man dama tooj te nit ñi ma bëggal seen bopp dama dem Amérique mu mel ni liiru ku nekk Géejawaay barki Serigne Fallou Mbacké place ma faal ku bëgg a gis liiru ñëw place ma faal mbër yee fa nekk xale yi sama rakk yi ñëpp bëgg ma uuf ma ma ca kaw booy euh, euh, kii Ramdan at kii booy bii nu mu tudd dumbul dumbul Efra Rouge jëf jël jëf jël Baye Fall bu mag ba at ki booy bawal ah des na at kii nday sànn ki nekkoon rock énergie déedéet bàyyi pël at des na des na keneen ki may wax ki tam ne ko tey yaru non non tam yaru booy bu yaru boobu rek tam bëroon fee booy ñaa tam yaru nday nekk taalibe booy bu baax kii waay te mu tur bi waay booy bu tam jaaroon daara ja tam nekkoon ndongo daa dol fu dol fu dol fu non non deful ma dara ak yar ba pare ñu bëgg ma aj ma ca kaw xam nga loolu mooy àdduna bëgg ma moo tax yàlla na yàlla defal jàmm te nekkuñu fa ay yaafuus de déet nekkuñu Amérique ay yaafuus de xale yooyu yàlla na leen yàlla defal jàmm ñoom ñëpp mbëri ba li nu bëgg ñoo xam yàlla na ko yàlla defal samay rakk lan samay xar lan te man ku ma bëgg ma bëgg la ku ma yëg la ah. gis nga gis nga sàcc bi man dépassé naa fu may commentaire naan liir dañ koo sàcc sàccuñu ko loolu ban njëriñ laam am. kon dégg nga rumeur man musuma kaa di ci laa ko déggee. billaahi wallaahi wa at ma ñàkk sama ndey ak sama baay suñ ma sàccul woon duma taxaw di ko wax man dépassé naa yooyu sàcc bi ay 3 heures du matin ay non ay ay 2 heures demi laa tëdd. mu dugg sama ne euh, tëjuma balcon bi tëjuma balcon mu jaar si kaw yóbbu samay portable yóbbu sama tablette doom ak sama kalpe waa ma xëy dem police déclare ko wax ko commissaire wax ko ñëpp di sama plainte sama plainte ak ci man dem commissariat central ah déclaré ko foofu ah commissaire central maa ngi leen nuyu di nuyu sama waaja euh, borom fële nu mu sama waaja tam nekk sa commissaire central man daal yàlla na yàlla defal jàmm àdduna amul solo safar ngeen fi nan la ñaanal boroom safar gi muy Balla gay 2 Serigne Touba lay liggéeyal xaleel daa nekk si yoon bëgg sëriñ Touba ba jeex ci tàkk yàlla na ko yàlla defal jàmm lu mu mën ren yàlla na mën déwén lu ko raw. Fatma non dañuy waxtaan rek dama non dañ non déglu ma dañuy waxtaan du ma sa morom bul ma la waxat loolu non bu dama la wax ma ko waxat waaw dama la wax bul ma ko waxat ko ba xam ba léegi yaa ngi ni man soo ma gisee nii bi ma laaj ba xam yaa ngi màggal loolu. ma yaa ngi màggal dama ne ba xam yaa ngi waaj damaa bëgg pour nga ma laajatul mel ni faj ba non dama la bu ma laaj ba xam yaa ngi màggal ka rek. ah yaa ngi laa la wax de. laaj lool waaw ma laaj yaa ngi màggal bis bi ana ma koy wax yàlla na ko yàlla lafal cat nag yaa ngi nii yeewe yàlla na ko yàlla lafal cat at mu jot day gën a yokk rek yàlla na ko yàlla lafal cat di ñaanal xale yu mbër yi nekk géejawaay gépp yàlla defal leen jàmm te musal leen saytaane ak làmmiñ dafa gaaw nan leen bokk ndey ak baay yéeneen te jàmm àdduna amul solo loo fi gis dafay jeex loo fi gis dafay jeex di ñaanal sunu mag ji baax ji fi jógee barki de moo njaay muy daaw du fekk yàlla ko yàlla xaare àjjana ku baaxoon la ci Géejawaay di ñaanal autorité yi nekk Géejawaay yëpp yàlla defal leen jàmm ak Pape Mama doyen bu mag boobu nga xam ne jàmm rek lay dox. waaw lu lu yàggul dara ñu gis ñu seen rakk mu sëy sumbulu. waaw sumbulu mu xëy lendemain si lendemain bi dëgg si ay coow. coow lan ay waa jëlee nan ko ñaanal jàmm. ñuy wax loolu yëpp nan ko ñaanal jàmm. am na yoo xam ne kenn du ko def sumbulu xale la sëy la bëgg xaas bëgg na sumbulu sumbulu bëgg na xaas yàlla na leen yàlla lafal cet te ñuy wax nag nañ téye seen làmmiñ nag te ñaanal leen jàmm rek àdduna amul solo ndax kum ci woon doon yow tamit nga takk soxna am ñu taxaw ci toujours di wax du la neex na leen ñaanal jàmm yàlla musal leen ci seytaane at làmmiñ ñu am ci njaboot gu barkeel ci sëy bi yàlla na ne yàlla defal jàmm ndax Soumboulou ku baax la xale bu yar la maa ko yar c'est que de très gàtt na tànk Soumboulou du wax am na caractère am na fulla am na fayda xaas ay eh, Ablaye Diop xaas ay xaas ay xaas sama xarit la c'est sa ami c'est mon frère xaas c'est mon ami c'est yàlla ko yàlla defal jàmm nuyu sama waaja ma borom Paris Sarr bu sëñ Mansour di gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen gërëm yéen ñi ndax lii ngeen def Cheikh Cissé borom Etéma borom Dagana Cheikh Cissé ku baax la bëgg dagana réewam yàlla na ko yàlla defal jàmm Cheikh Cissé waalo waalo la bu mag bi mooy borom dagana ay Cheikh Cissé ay Cheikh Cissé daf moo gaaw susu yàlla na ko xam naa Cheikh Cissé borom waalo la yàlla na ko yàlla defal jàmm social ba muy def dëkkam xam nañ ko te Sénégal gi tam mi ngi fiy def social yàlla na ko yàlla defal jàmm waaye waxuma la lool de sama rakk ja laat borom Qatar maa ngi koy gërëm di ko sant mooy borom màggal gi te xam naa dina màggal si borom Qatar Adja Gass mooy borom Angleterre sama la ak ku sama jigéen bu boobu ku ma mboor yàlla na leen yàlla defal jàmm sama daje ma di leen gërëm di leen sant yàlla na leen yàlla jàppale képp ku yor site te ñëw ci bis bi yàlla na site bi doon télé yàlla na site bi doon tele ndax tubaarkaal ñun Serigne Touba la ñuy liggéeyal te fii ku fi ñëw xam tubaa ni de moo fi nekk ku fi ñëw leneen nag ku fi indil leneen lu dul Serigne Touba wàcc nga ko fii Serigne Touba rek Serigne Touba rek rek waaw maanaam liggéeyal Serigne Touba waaw ak yaakaar ko mhm. loolu loo si mën a wax liggéeyal Serigne Touba ak yaakaar ko liggéeyal Serigne Touba ak yaakaar ko àjjana soo dee dem àjjana loo am liggéeyal jox Serigne Touba am doom tudde Serigne Touba loo liggéey Serigne Touba waay waay waaye waaye waay wax dëgg yàlla nag tubaarkàlla macha allah nag gis nga nag kooku nag ah laa ilaha illallah moom rasulullah sallallahu wa gis nga loolu ñun ay taalibe murid lan ñun yaakaarum kenn suruñ suruñ Serigne Touba maam Cheikh Rayma Fall lu dul liggéey yóbbu waa kër Serigne Touba yi su ñu amee doom tuddee waa kër Serigne Touba waa li neexul. neexul trop ah bu ah? eh, fi tudd waay wuli sama yoon nekku ci. sama yoon nekku ci wuli xool dimbali ma nan daal yàlla yàlla ci yóbbu ci màggal geeg jàmm ñu dem ak jàmm dikk jàmm. lu lépp lu fa waay ñaan. mu nangu nga de. ko ci màggal waaw loolu loolu soo xamee soo ko nekkee fi di ko wax wax affaire mu gisal lay doon jarul wax. waaw ak dem Touba bi li ñuy pare yëpp am na yoo xam jarul wax ndax am na yoo xam soo koy wax dafay du affaire mu gisal wax ñun amuñu dara mel ñu neen dañu am suñuy nit yu baax rek ñu ñuy teral diñu jàppale ci màggal gi. yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm di nuyu booy euh, safar gi ñoo ngi nii di safar boobu màggal ga ah, xoolal ah, kii kii waaw booy Assane Fall global textile moo ñu daggal yi yëpp tiis yi ñu ñëw ko safar gi at yi ñuy yóbbu Touba yàlla na ko yàlla defal jàmm taalibe Sëriñ Fallu Mbàkke ba waaye yéen yàlla na yàlla defal jàmm yàlla nga am jëkkër waaw yàlla na yàlla yàlla na yàlla defal balaa déwén nga am jëkkër ta nga yaru yarul journaliste que liggéey ngay def waaye question yéen question yu vulgaire yi c'est pas bon yéen question yu vulgaire voilà def xaw ko defalul tur rafet ndax damay bañ ñu nuroo la laag am na benn xale bu fi nekkoon xadi fay yaruwul dara dégg naa am na jëkkër fan yàlla ko yàlla defal jàmm waaye xanaa su amee jëkkër dina soppeeku xadi fay dégg naa am na jëkkër yàlla ko yàlla jàppale jëkkër waaw loolu yàllaa ko def noo juboo na léegi ana grand bi sunu grand bu baax bi yàlla ko yàlla defal jàmm yàlla na ko yàlla defal jàmm waaw amul problème sama rakk nga non non samay rakk nga samay rakk yàlla na la yàlla defal jàmm góorgóorlu rek dégg nga ok